ti leen ne Makhtar Sarr dafa def ay tuuma jëmee ko ci ngóor sii jël seeni wax wax ko ba yegg ci ne ndax danga nga bëgg a wax ne kii def di góor jigéen citation ku ko xam nañ koy defee lu mel noonu la ñuy wax donte loolu moom ñi ngi ci doon waajal loo xam ne nii ca bis ba la doom doon neex ndeyam comme ni ma ko waxee ndax lu mat fukki avocat taxawoon nanu ngir li nu wax bu ñu demee ci bis ba ñu dëggal ko may jaajëfal Jupiter bu baax a baax ndax nit da nga nekk ci kër am lu mel ni dikk fa kilifa ga boo ñëwee dana la wankat ah waroo koon a waxee ci sama bërëb wala nangam mais bi ma duggee ci biroom daf ma xool ci biir biiri bët ne ma cent pour cent la nu ànd ak yow te dañ ciy dem ba mu jeex borom kër gi ma ciy jaajëfal bu baax a baax ne ma bu laajee ñu jëlal la avocat ñu jël avocat ma sant ko gërëm ko ne ko nag mbirum avocat xëy na jëlal ko sa bopp mais borom dëj bi moom mën na jooy dëjam ndax li ñuy wax ñun làmbatuwun ko pour muy leer sénégalais yépp waxoon naa ko fii ma toogoon maa ngi koy waxaat mosuma tudd ngóor si ne borom ñaari turi la mosula am maa ngi gis ñu bari naan daf ko tuumaal daf ko tuumaal c'est pas vrai amul kenn ku ma tuumaal dafa def ay fee yu ne fàng li mujj xew ñaari góor yu ne léng taxaw ci kaw seen bu muy wéyee def seen jëfu njaay xàll jooju noonu léegi ci loolu lañ doon commentaire fii ci plateau bi ma ne nag mënuñoo tudd ñaar ñi te tudd ñu ki nga xam ne ni tey moo organisé woon mbir yi ma delloo histoire ci gàddu saak ci solub t-shirt ci def ay jëf yu bari yoo xam ne ni yu tegaloo la yoo xam ne yu ba tege la ma ne nag na arrêté li muy def na ay mbokkam wax ak moom defe naa loolu noonu leen ma waxoon dëgg yàlla ji la Sénégal nag moo toll foo xam ne nii la waaja waxoon ne hada damaanu damaanu xaalis ak mbub mu jot fa lam tajin mbub mu jot fa xii kii lu ko jot léegi daal ku am dëgg mooy ki am dërëm mais ki ñàkk dërëm mooy ki ñàkk dëgg ku am dëgg ku am dërëm kenn du ne la sa bët bi suufa ngi ci ñun dund ñu loolu noon le te il faut ñu bàyyi xel ne ñun yàlla moonu sas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nenu man raa minkum munkaran fal yughayyiru bi yadihi mhm. fa in lam yasta sa làmmiñ ku jàpp ne waaw dangaa tooñ nit sa yoon nekkul ci moom bàyyil doomu jàmbur nàngam ak nangam yëgoo li xew gis nga système mu tëj gémmiñ moo fi dul dox fii kenn mënu la fexe ba doxal li ngay bëgg a doxal ci naka su dul noonu te ñi ko war a dénoncé duñu ko dénoncé naa ko def te kenn du ko wax amul fenn mhm. loolu pour muy leer léegi nag ku bëgg ngóor si mooy ki nga xam ne moo naan ko arrêteel mais ñaata woykat ñoo nekk ci Sénégal ndax kenn mës na leen a tudd di leen dénoncé ci jëf yu mel nii pour pourquoi bërki démb ngóor si porté na plainte 2019 imam Kanté 2021 oustaz Makhtar Sarr léegi 2023 ban sëriñ lay doon kan moom mos a taxaw di fokkat bu ràññeeku ñu ne porté na pelent imam porté na plainte ab oustaz léegi nit ñi duñu réfléchir wax ak kooku noonu le waaye dañuy ëlbatiku ne naan yéen imam yi yéen oustaz yi gis nga man nit saaga rek la ma mën a def saaga te loolu moom yomb na Raja dunia bi la ñëk yëkëté kaddu di wax bi jur télé bi muy 2006 ba fi mu toll ni su fekkone ne lu bari li amna leneen lu ñu xam ci maktar sa lu bokku lak saga ba légui def nañ ko amna lo xamni ni man ma ci jema yar sama bop ba toll fi ma toll kenn ku ma xam yabuma ma ki ma xamul nak man na ma saga ba tax na kon amna lo loo ni du ay plante motax tax bima bi muy annoncé ne war na defi plante ci la def akhiru zaman dëggalaat la ma waxoon pelante bi jëpp ma def déclaration wax ci li ma ci wax ñëpp seetaan nañ ko man du pelante moo may yëngal dama ne sama maam maam ma Lamine saar dañ ko rey ci daaraam man deretu ku ñu rey ci diine mooy daw ci man kon kaso yëngalu ma pelante yëngatuma yëngalu ma xooqatal yooyu yëngatu yëngalu ma su fekkoon ne dama dem ba ca bis ba ñu ne ma kat yow teg nañ la lii da ngay dem tëddi damay tëdd conscience bu tranquille da damay xamne sama mam. ma ñu dugal bàmmeel ci waru diine man seutam lañ duggal kasso ci waru diine man lool lay sago lool lay ndamo lenn dong lay ragal muy togn di fi ñuko ko indi sam mbax gi nga xamne ne moom ñu sàmm ba legi lool lañu way diko sam kuy fo sam po po ko nga yam ci sam po waye kep ku ñu gis ne yaangi ngi déroulé mbir mu jégué mbirum borom ñaari turi danañ la dénoncer te danañ ko jëflanté ak yow te lu mu jar nak aka neexoon la ons jot aka neexoon la onze jot <laughs> xam naa nag euh, Makhtar Sarr pour ñoom i mbokk ci Sénégal bi ma déggee discours yi tàmbali diw boromi mbokk la doomu jàmbur la ma ne ay waay Samba ñu pelante ma ñu naan waaw boro doomi jàmbur di yàq deram man maa nekk man ku ñu for ci Sénégal man man maa nekkul doomu jàmbur man man maa amuli mbokk man ci Sénégal ba tax na bi mbir yi jugee ñu ne waaw jàmm gën dox mane maa doxlawul kenn maa ñaanlawul kenn maa yónniwul kenn moom ma déclaré guerre damay guerre ak moom ba mu saf te <laughs> yàlla ñu yàlla defal sutura <laughs> gis nga dañu exposé sunu bopp ñun jaay suñu bakkan man collectif non à la franc-maçonnerie et à l'homosexualité bi muy doon collectif bi man maa ko doon coordonné Ababacar Mbuub nekkoon porte-parole bi journal monde bi yëpp la monde ak mboolem journal yi bind di dal ci kaw collectif boobu noonu la ñu résister taxaw 2008 ba léegi kon dara yëngaluñu lenn dong lañ ragal mooy tooñ te ba léegi ñu ngi koy daw te amul kenn ku ñu tooñ ba ñaan waaw diw sàngam mi ngi baaleeg mi ngi jéggale moom moo ma tooñ fi mu toll nii moom ci boppam moo ma tooñ de ndax li ma saaga ci fan yii ci aw nit te moom moo ubbi buntu biñ ma saagaa li ma sosal ci aw nit te moo ubbi buntu buñ ma sosalee moom moo ma tooñ te maa ngi koy déglu maa ngi koy déglu bu ma kenn ne waaw gannaaw ay jàmm dama ne moo taal safaraam dugg ci biir moo ubbiwaat fenêtre génn man taaluma dara dama toog dénoncé li ma war a dénoncé mu fekk ma ci sama biir waar moom mi ngi ci waaram musique am ñeneen ñi ngi musique amul kenn kuñ ma sa wax ci moom moo def loo xam ne dafa war ñu wax ci moom ma wax ci moom man loolu sama liggéey la mu fekk ma sama biir waar citation porte ma plainte ma moom moo ma tooñ ok léegi nag